amul lu mu mus a xewle loo xam ne yëg naa ko mm-hmm. fekk ma nekk ci dëkk bi ca ñëwuma fi mm-hmm. te ni mu ko waxee léegi xëy na yàlla def na magam laa mm-hmm. mais it moom xale bu bu loxoom set la mun a ànd ak magu Cees yëpp kooku ku ko wax tamit nit da ngay wax dëgg parce que nit ki nga xam ni alalam amul luy xew Cees gisuma ko mu jël alisam dugal ko ci musumaa gis luy xew ca demul seeti nit ñi musumaa gis lu yëngatu

waaw kon nag na xelam dal xam ne ñoo bokk Thiès bokk Thiès Est mais suñu ànd ak suñu lënkaloo day li nga xam ne mooy njëriñu waa Thiès loolu nag comme ni mu ko waxee nekk na loo xam ni euh, xam naa ni dinañ ko dox dinañ ci waxtaan mais daal loolu ci yeneen i jotaay la ni ma ko waxee mais moom na xam ni daal suñu suñu jàppante njëriñu waa Thiès la suñu ànd njëriñu waa Thiès la xam na ko xam naa ko kon su soobee yàlla dinañ xool ni nga xam noonu la gën a jekkee noonu la gën a rafete ñu def ko parce que moom lu mu bëgg euh, bàyyil naa ko ko lu mu bëgg it moom bàyyil na ma kon donc nekk na loo xam ne euh, coow mënu cee am suñu frère euh, sunu xarit ñëwoon tey jaale si ma si tiis bi nga xamante ni moo daw si dal si famille Dieye di sama mag euh, euh, pap djey euh, ñu koy wax Medoune djey donc tay sama xarit sama wolere le président de l'ASP le président Mory ñew euh indi jalam donc ñu koy nangul di xamni li mu def ni mënon na su sax bañ a fekk parce que suma ma woowoon téléphone rek wala mu envoyé ma message rek dama kay nangul parce que xamna naa fi mu toll ci man ak fi mu toll si askanu Thiès donc tey eh, dama am mbégte ak contentement ci déplacement bi nga xamanteni def nako et aussi and fek eh, délégation bu am solo parce que mënon na ñëw rek mom kessé wante àll na fekk eh, toute une délégation très importante ànd seek ses responsables femmes ak aussi son coordinateur ak ñëpp ñi nga xamanteni rek ñom ñoo nekk ci mouvement bi donc lii day wane ni rek sama lëkkaloogu moom lii li moko confirmer di wax ni rek ñun Thiès rek ñu ñor donc euh, je pense que ni on ne peut pas euh, construire Thiès sans les Thiessois mais aussi avec euh, des Thiessois de valeur des Thiessois dignes des Thiessois intègres te lolu man dama ko gis ci mom donc bo gisee yenn valeur ci nit da ngay and ak mom donc lolu mo waral sama and ak mom donc tay eh, ñu ñu bokk ay ambition bokk ay vision donc euh, lolu nekk lo xamante te ni si kanam waa Thiès eh, nañ si xam dara parce que je pense que ni sax xam nañ ci dara wante dañ ko gëna mëna mën donc di nit ko xamanteni luko ñor rek moy askan wi luko ñor eh, champ de bataille bo gis bo xamanteni tek nañ ko pour ties pour intérêt ties gis nañ ko fa euh taxawu président Macky Sall eh, taxawu askanu ties surtout taxawu femmes donc day ku wax rek

Euh, waa coalition boo ko Yaakaar ñëpp euh, teewal na tous les présidents de mouvement parce que ñi nga man xamante ni mënuñu ñëw woo nañ ma envoyé na message mais tey moom ñëwam sax dama jàpp ni mooy ñëw président Macky Sall dama jàpp ni mooy ñëw le coordinateur départemental Augustin Tine mais aussi dama jàpp ni mooy ñëw euh, le ministre Ndèye Tické Ndiaye donc bu ñëwee rek wax cela veut dire

ñaan yàlla rek nañu jéem a àndaat euh, union euh, dans les cœurs parce que euh, union moom boo koy wax rek dafa war a nekk union sacrée li ñuy def ñu tibbee ko si suñu xol ah àndandoo ngir mën mën a boole parce que tey Thiès li ma ko waxee dafa soxla ay fis digne yu mel ni le président Mamadou parce que tey kenn mënul wax sur le plan de l'éducation te gisoo jéego yu am solo yoo xamante ni mu nga ko ciy def donc euh, vraiment je pense que loolu moo doon euh, wax ji ñu ngi leen di sant bu baax leen euh, remercier ci la yeewu rek président xam naa ne jot bi amul <laughs> mais vraiment kontaan nañ trop trop incha allah jërëjëf